révision exceptionnelle bi jàpp nañ ne délai bi ñu ko jox dafa gàtt ci weer la ñu may ñit ñi ñu dem inscrire ci liste électorale yi jàpp nañ ne lu gàtt la lu ñu mën a corriger la ndax présidentielle bi passé muy bu 2019 euh, ñi doon dem di inscrire amoon nañ au moins ñaari at ñaari weer donc tey jii euh, gisuñu lu war a mën a tax ba inscription yi sur les listes électorales muy période de révision bi warul mën a nekk ñaari weer waa dama ne gisuma lu tax mënul ma a nekk ñaari weer parce que 2019 bi ñu dem élection présidentielle ñaari weer la woon war nañ ko mën a def ñaari weer maintenant décret bi génn na ba pare du ñu wax ñu soppi décret bi mais li ñuy demander mooy bu weer bi nga xam ne moom la décret bi joxee jeexee mu am beneen décret bu ñëw proroger ko maanaam yokk ci beneen weer pour mu permettre ñi nga xamante ne ñoo war a inscrire ci liste électorale yi surtout ñi nga xam ne dinañu am 18 ans ci bésum élection yi mu ñuy ooy les primo votants ñi nga xam ne dañuy voter pour la première fois mën a am jot ak temps bu doy pour mun a inscrire ci liste électorale yi ak ñi nga xamante ne dañu war a changer adresse ak ñi nga xamante ne également dañu nekkoon euh, militaire wala leneen te war a mën a léegi changer statut loolu mooy bi jëkk donc suñu wax bu jëkk mooy ñaan nguur gi mu yokk période de révision bi bu décret bi nga xamante ne nii jeexee mu def beneen décret pour yokkaat ci beneen weer pour que le maximum de sénégalais mën a bokk ci élection yi muy participation bu am doole. xam nga ne gouvernement bi jël na décret jàpp nañ ne révision bi dafay door. le 6 avril bii di ñëw jeex le 5 mai bale ji ñëw alors ñun dañu jàpp ne euh, diir boobu dafa gàtt dafa gàtt topp weer rek pour révision liste électorale dafa gàtt topp euh, bu doon suñu sago loolu dañuy ñaan gouvernement bi bu doon suñu sago ñu yokk ba beneen weer bu ñu demee ba euh, délai délai décret bi jeex maanaam ba cinq mais ñu yokkaat yeneen beneen weer pour may xale yi mën a inscrire parce que problème bi yëpp euh, bi ñu am pour euh, euh, taux de participation bi ci foofu la jógee ci li xale yu bari du ñu am jotu inscrire parce que am yenn saa yi am carte d'identité yi dafay jafeñ yenn saa yi ci carte d'identité yi dañ ci bind ne pas euh, yooyu yëpp dafay tax euh, délai yi pour pour mën a inscrire pour mën a am carte d'identité ba noppi inscrire ci liste électorale bi euh, yenn saa yi dafay xaw a gudd dafay xaw a jafañ moo tax ñuy ñaan gouvernement bi mu yokkaat mu yokkaatal ñuy benn weer pour électeurs yi mën a mën a mën a mën a inscrire